constater on on voit de plus en plus le Idrissa Seck que nous aimons Idrissa Seck bi xam la Sénégalais yi bëgg ki nga xam ne il sait dire non il sait dire stop bu jotee euh, déglu nañ ko ci sortem à Thiès ñu si bëri ils ont lu entre les lignes que ne kii il dit à Macky bul wut troisième candidature te Idrissa Seck boobu noonu la Sénégalais yu bëri na woon respecté ko parce qu'il a été le premier à le dire Abdoulaye Wade tey jii nii 2024 mi ngi ñëw yéen wax gu leen lu leer mais ñu bëri ñu ngi njort kane ne da ngeen ci bëgg a bokk en jiital ki nga xam ne mooy Idrissa Seck ndax loolu lu ñu war a jàpp la wala dañoo juum ci ni ñu interpréter les propos du président Idrissa Seck. le président Idrissa bi Sénégal yi bëgg mooy cet homme de paix. le président Idrissa Seck Sénégal yi bëgg mooy ki nga xamante ni stabilité Sénégal daf ko jaral muy fàtte boppam souvent fàtte partem pour l'intérêt supérieur de la nation président Idrissa Seck bi sénégalais yi bëgg. Mhm. mooy président Idrissa Seck bi am casier casier amul benn démêlé avec la justice. da ngay non waxuma gaaruwaale ma parce que ñun lu ñu ragal a wax. amul judiciaire. mais man je parle de leader et de mon politique le président Idrissa Seck l'homme que je côtoie. dama ne moom sénégalais yi ki ñu bëgg mooy ki nga xamante ni dafa am un casier judiciaire vierge ki nga xamante ni du ne sénégalais yi. kaa leen dee avec le régime de Macky Sall avec le régime de euh, na. Idriss Seck xam na ci dara wax na ko nee na chantier de Thiès yi sûreté de l'État atteinte yooyu noonu y avait la main de Macky Sall moo nekkoon bras armé de lay Wade ce que je veux dire par mooy musul wax loolu le ah président ah Idrissa ah dafa wax biñ ko accusé que ne jusqu'à l'extinction du soleil vous ne trouverez aucun centime de détourné qui ne soit euh, aucun centime qui ne soit d'origine licite maanaam lépp lu mu yor mhm. wala lépp loo xam ne fekk nañ ko ci alalam dafay nekk loo xamante ni fañ fa mu jugee lu set la lu sell la donc man fi ma nekkoon euh, ma nekkoon nga may ma dinaa si ñëw li nga bëgg li nga bëgg dinaa la ci dinaa dinaa la ci tontu mais le président Idrissa bi sénégalais yi bëgg mooy le président Idrissa Seck bi nga xamante ni ci projet politique am mhm. li mu ci roof mooy servir pour lui servir demeure la station la plus élevée de la seigneurie. Mm -hmm. président Idrissa Seck bi sénégalais yi bëgg mooy sénégalais bu nekk détenteur de talent nga ñu génnee sa talent pour mu servir sa famille sa communauté sa réew sa sa continent mériterait même qu'on y la vie président Idrissa Seck bi sénégalais yi bëgg mooy président Idrissa Seck bi nga xamante ne c'est un homme de principe et un homme de conviction actuellement nag le parti Rewmi dafa nekk ci coalition bi ñu wax la coalition Benno Bokk Yaakaar mhm. ñun nag ku ñu xam. topp trajectoire politique réew mi ak le président Idrissa Seck coalition bu ci mën a bu ñu mën a bokk dinañ fexe ba nekk fa les responsables les plus disciplinés dinañ fexe ba lépp lu yàq coalition boobu du jugee si ñun dinañ fexe ba consolider fortifier li nga xamante ni moom mooy coalition bu ñu bokk ñun nag dañ ko def confiance. mais du ngeen nangu troisième candidature loolu moom du ngeen ko nangu. Euh, Mamadou actuellement réew mi du ngeen nangu loolu. actuellement actuellement au réew mi amul benn instance décisionnelle du parti réew mi bu dajee. pour wax ci candidature président Idrissa Seck ou candidature euh, président Macky Sall waxuñu ci troisième candidature waxuñu ci deuxième quinquennat waxuñu ci quatrième quinquennat. vous attendez quoi pour le moment. le parti Yewwi le problème c'était déjà posé. non wax yàgg na. je te rappelle euh, je vous rappelle. waxi non non je parle pas de contexte. Mm-hmm. je vous rappelle juste que ñun réew mi kenn du duñu dicter suñu timing de communication. ça il faut que aussi nit ñi comprendre ko. et pourtant vous demandez euh, les les nous, aux électeurs de voter pour. les électeurs ñu ngi wax ak ak ñoom bu presse bi yëgee ñu ngi wax ak ñoom bu presse bi yëgul nous sommes en contact permanent démb rek maa ngi doon ah réunion démb rek démb rek de Dakar mhm. pour wax la ne li ñun ñu ngi suñu base yi ku ci nekk di liggéey actuellement l' actualité réew mi ak l' actualité au niveau de la coalition Benno Bokk Yaakaar mooy ñu animer suñu parti yépp ku ci nekk sa parti nga dellu si nga wax ak say militants say responsables say potentiels euh, sympathisants wala say say militants say potentiels euh, militants ak sympathisants pour ñu renforcer seen parti politique yi deuxième point bi nga xamante ni au niveau moo def l' au niveau de Benno et de notre euh, parti qui est le parti Rewmi mooy ñu fexe ba l'unité et la cohésion bi nga xamante ni Benno am na ko ñun ñu renforcer ko ñun si loolu la ñu nekk maintenant tout parti politique a vocation peut-être à conquérir le pouvoir mais politique nag moom dafa am timing dafa am euh, non euh, may ma eggali foofu dinañ bu jaree ñu waxtaan suba mm-hmm. nous sommes dans le présent vous vous êtes peut-être dans l'avenir dans le futur mais actuellement nous nous sommes dans le présent et nous discutons des éléments d'actualité les éléments d'actualité c'est l'animation des différents partis politiques qui composent le Benno et aussi c'est c'est l'unité ah, et le et la cohésion dans Benno maintenant suba nag lu war a ñëw nos partis vont en discuter mm-hmm. nos leaders au niveau de la conférence des leaders avec le président Macky ñoom dinañ ci waxtaan te lu ñu retenir la base le saura et ñun aussi bu ko xam ko jote dinañ ci waxtaan ak yéen